gàmmu Taïba bi ma ñëw fi maa ngi fi soog a dikk nag parce que doon fekk Taïba dama doon fekk ma yore xale wala wala fekk ma nekk jigéenu wérul moo tax ñëw leeg na fi ne nii nag yàlla def na nag yore ma xale nampalu ma def ma dara ma ne comme ko oyof naa ne xaaral ma dem siyaara dem xooli Taïba nu mu mel ma ne xaaral ma dem ba xam Taïba nu mu mel ah fi ne moom sama xol sedd na sama kontaan naa moom sama xol seet na liñ ma doon wax gisuma ko de parce que su ma digg ñu naan soo demee tijaan yi duñ joxe lekk soo demee doo lekk doo naan te ma ñëwee ba léegi lekk naa fee laa naan naa fi café joñ jox ma mburu liñ ma doon wax lépp ma ko sama xol sedd na moom sama xol sedd na maa ngi naan ndox maa ngi lekk ma ñëwee ba léegi jënduma dara benn lekk jënduma ko jënduma ndox jënduma jënduma lekk ba ma ñëwee ba léegi fu ma tourné gis lekk yi may lekk di naan sama xol sedd na di ko ñaanal maa ngi siyaare bu baax.